ay ayca mi ngi noonu mbokk internetu Dakar Buzz comme ni ma leen ko waxee ba tey ñu ngi ci daal di euh, tudd bi nga xamante ni la mooy tudd Daaru caam ah euh, borom dina ma neex waaye maa ngi koy jaajëfal lu bëree bëri Oulimata Pouy ah madame Touré mi ngi foofu gis nga ko tey am mooma da génne ci sañsa bu yànji bii ne ma demee nii ci tudd bi rek euh, dafa tàng ki ñu toogal nag nekk ci goro ci ki nga xamante ni moo di Daaru yaay booy ñu ngi lay nuyu. na ngeen def maa ngi di fay di leen di leen sant yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci loom ak santam. di rafet yi nag seen taxawaay ndax man dama leen di seetaan ci télé bi leen seetaan ci YouTube bi seen taxawaay rafet na fonk ngeen seen liggéey li ngeen di def man ngeen ko macha allah yal na leen ci yàlla defal jàmm. tey tey tey da nga defanteeg sa sa sa wujj bu bees bi de ndax da ngaa takk say verre. waaw waaye daf maa liggéey bi muy waaj a ñëw ndax dafa nekk bay waaj a ñëw fekk ma feebar waaye bu ma fekkoon te samay temps bu ñu defante yéen yaay yi sax da ngeen man maa yaayu daaro Pam sa mooy doomu Faat Jóob yaayu Daaru waaye nag ñëwuma ko ndax sama doom baax na Daaru baax na ndax li tax mu baax jaboot jàmm ko ji te dafa ñëw sama kër indi jàmm tax ñun gawlo dafa yà Jóob ak Adama Jóob magam dafa yàgg ak gawlo yi ñu xamanteeg gawlo yi ba mel na ñu bokk ak ñoom da ak baay ku ne xam nañ suñu jikko daaro bu ñu cofoon ñu wadd bu ñu ñàkkaloon fayda man kenn ëpp ma fu la ku ne xam na ma maa gën jaay gawlo mii ñoo seexoo dañ ne sax dañoo pànk waaye pànkuñu dañoo bañ ku ñu yàpp waaye daaro dafa ñëw rek xam ne ñooy ndeyam mu téye nu ni mu téye faat jum mi. defu la goro déedéet déedéet ñii toog ñëpp samay doom lañ kii sama taaw ndey faatu mais toogoon topp ci kii maa ko jur di ndeyam di bàjjanam keem yaa topp ci yaayam waaye daaro dafa ñëw bëgg ñëpp ñëw nag ay wujjam amul nde sax am na wujju aawa kër ga mooy njëkkeem ndax maa topp ci yaayi aawa ba muy màgg sàll nday màggat ndey ma ah, Maga Sall yegg si ne ko doo ma gën a baax daaru ñëw ne leen may du ngeen ma gën a baax tekke yaande ak ngóone tey nag jaaxaluñ ma ma ne ko boo ñëwoon caam andi woo jàmm danga ma jaaxal ndax ñii nga fi fekk dañoo ñëw andi jàmm yor ma yor bu rafet nga ñëw nag ne leen du ngeen ma gën a baax du ngeen ma gën a bëgg sama yaay lu rafet mu jëndal ma rafet ma sol ba ci borodi bii ma sol moo ko jënd ma di ko sant nag di sant ay ndeyam ndax Adama Diop yàlla yàgg na ak jàmm moom Maguette ba ñuy tuuti la ca Touba. ñu xamante ba tey dara ñaawu ci Faat Jóob mii noonu boo baag léegi gisuma lu mu wax ci sëy daaru bii lu ñaaw wala ay mbokkam wax ko ci walla ñu def ko ci as nag day am lu ko ñu lug boo ko jiyee teraanga dala koy fay te nun ku nu doon ñu fay ku ñu lebal ñu fay maa ngi koy sant maa ngi sant bokkam di sant ndeyam ju baax ji nga xam ne moom a gën ci pam may sa dana ko toggal dana ko suppal dana ko fóotal te man mi sax mënatuma loolu Faat Diop mii moo baax garab nag boo ko daggee la nga fa daggee rek moo tey jebbi mooy daaru maa ngi koy sant di sant magam yi mu fi fekk di sant sama njaboot gi gépp nag wu mag kenn mat njaay nday sàmb nday faatu nday mbuub sama njabootu mag yëpp ndax ku lim desal te ku lim kii toog di am sekk sama rak la moo topp ci man mooy ñetteelu Abdou mooy yaayu njëkke lii toog cër bii doom jii ñu ko tudde ki ñu ko tudde barki démb la gaañu démb la woon ñeen fukki guddeem moom mi moom moomoon teet bi waaye bañ waxee dane su ma ko juróon muy jigéen man mii jigéen su ma ko juróon tey sax moom laa koy tuddee ma di ko ci sant nag ndax bu ko neexoon jëlub cëram waaye da ko tuddee magam ju baax dañuy wax Layla Mourad yàlla na ko surtout fanta de sa barke ba kon duñ ci jooy dara nii mu ko uufee tudd nag yàlla na ko ni muuree mu sëy jërë ngeen jëf. est-ce que gorowoo ak euh, artiste yomb na yaa gorowoo ak artiste jafewul rawatina muy artiste bu am kilifa. ndax daaro lu muy yëkkati bala koo def daf may woo tàggu ma yaay damaa bëgg a def nangam de loo ci xam ma ne ko defal ndax bi ko jëkkëram di bëgg da koo fekk ci waaram te man du ma tere kenn liggéeyam bam koy takk dama ko ne boo fiiree di nga am problème ndax jabari artiste nga yor dina guddee àll dina dem dina dikk dina dem foo xamut dina dem foo yëgut ndax dem da leen di bett kon nag naa ma ne ko boo nga jéem am xol muñ ca di ko jàppale nag ki liggéeyam ndax danga ko fekk ci teraangaam moom it muy xele bu am xel tubaar fakkal la bala moo génn këram wala mu def dara ne ma yaay nu may def ma ne ko defee nii defee nii kon xam nga loolu jafewul nit ki doo ko fekk ci waaram ne ko bàyyi ko. Euh, olof nee na ku la jiitu ci néeg bu lëndam moo la mën a wax fi ngay toogee ginnaaw bi mu góorgóorloo yooyu yëpp euh, xel du doy yan conseil nga koy jox digganteem ak borom këram. ah digganteem borom këram nag moom borom këram moom sàmb dafa doon ay baayam doon ay magam ak i njoba mi ci waaloog ma samba mi ci siisu abdourahmane tàkku fall maamam la ñu jaawaleeg buur ba jam sambala bay fatim njaay mi des ci pël gi ci gànjul kooku mbacce wa dee wax danaax lu bari ndax dafa am jom fekk ay magam ni ñu mel mu ne li may ni ngeen aw rek laay aw kii mooy samab taaw moom mu bokk ndey ñoo bokk baay ndax kii maag yaayam suñu ñaari maam yee bokk ndey baay mooy suñu aw maay ñaari bi kay ñetteel bi te dara ñaawul di ko conseil nu mu téeseem bu mu reew bu mu bew te gisuma ko ci moom te jëkkëram ànd ak jëkkëram ànd ak bokki jëkkëram man nee naa leen ku ma am yëgal ma samay bokk sax moom ma gënal yëg ma ndax nit mbokkam gan gu leen gis fees si teral leen gan gu leen gis yëg leen ko may leen ko te may leen ko aaju buy dem gunge leen ndax tubaar fa kàlla damaa bari famille te ñëpp ma bëgg bari mbokk bari xarit sama kër day mel ni pëtoo ku ne dugg ak génn ku jógee sama kër da ngay ñëw jaar s ci këram gi maa ngi seeti daaru te boo dikkee mu def ak yow teraanga def ak yow lu baax na lu jàpp si yoon wi maaw nag bu ko wàcc du ñu wàcc. mu nekk lu am lan la la mos a defal lu xamante ni keroog bi la ko defalee ah bett na la lool nag donte que am na ay mag eh, wax nga ko ci sa biir wax dafa ñëw rek topp ci seen seen tànk waaye ku nekk ak bésam. ku nekk ak bésam màggalu Tuubaa gi bu jotee buy ñëw day jiital otoom jëkkëram jiital otoom lu ñu fay naan lu ñu fay def ci fur wi bala ko góor ñee def wàlla may jiitu ndax ña yàlla dañoo dénk njaboot bu bari jom sama mag yu jigéen jee fa nekk màggat gay mbub ñoo bokk kër gi ñuy màggale suñu ñaari kër yee taxaloo bañ nañ ko ba buntu lañ fa doxale bala ñoo ñëw ñoom suñu seen doomi bàyyi doomi kee doomam sama doom danañ boolu jënd seen lépp fur wi ndox dara du manqué waaye buy dikk dee leen mayit man mii jigéen dama leen di wan may damay sëy du ngeen ma ko daax duy otoom ba mu fees ak fur wi duy otoom jëkkëram ba mu fees ak lépp luñ fa war a def bu ñëwee bool basang lu manqué mu ne mën nañ jënd fu teeku nag taxaw ànd ak i moromam ñu togg ba yëf ca jeex muy lu ma neex lool li ma defal ci lu baax li mun ma ko wax dama koy sant di ko ñaanal ak i magam aawa yam fa fekk ak jeeg yam fa yal na leen yàlla la fal cat daal ñëw na daal ne jeeg kenn du ma gën a baax ja ca njaare nga ni. ngi lamsal yaa ngi sànni. ma wujj bi damaa bett fi mu dikke la. ma bàyyi wujj bi comme wujj bi doon teel na laa ma fekkutoon dama dikkee rek ma feebar. waaye bu ma fekkoon tey ca jamono may soli capp di capp capp ah. Dakar bés comme niñ leen ko waxee ba tey euh, ki ñu toogal nag di sëriñ si ki nga xamante ni moo di euh, jëkkëru euh, daaru ñu toog ak kilifa tamit ci daaru sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay delloo ci te du nuyu fi daje ñëpp te di sant bu baax. te di xam le it ne te di xam it nekk daa mel ni ñëpp man lañ fi ñëwal ndax bés bi moom maa moom ndax eh, pap di borom këram nit bu ñëwee ci yow dénk la boppam papaam ñëw ci yow dénkaat la ko yaayam ñëw ci yow dénkaat la ko yaakaar naa loolu man dara mënatu ko wees nekkut ci dara lu ma xamut ñoom ñaari nekkuñ ci dara lu ma xamut lépp luñ nekk rek daf may leer nañ te ci ndigal rek lañ nekk li ci ne nag mënumaa wax ci Pape moom ndax euh, day man moom waaye daaru mi ku jàmbaare ku baax ku gore ku ñeme ku nangoo liggéey ku dencul dara ndax ay bokkam ak borom këram bi muy joué ci waaj ci koor gi métti woon na lool ba situation yi kooku explique du ko xam parce que jigéen bu tolloo diggéen dañ naan jigéenu wérut ku wérut kenn ku ne xam nañ ne li muy mooy dem tëdd noppalu ak dem faju ji waaye moom bi mu wéradee dafa taamu liggéey loolu nag la fi mag ñi nekkee woon daa gis ko daan nekk ci tool yi tawat di liggéey ba bis bu muy am doom kon bi mu tolloo nekk jigéen di dem di tourner loolu du loo xam ne lu bees la mag ñu baax ñu noonu lañ daan def ñu tolluwaan diggante ci lañ daan gën a nangoo liggéey sax ci bu ñu dara ci seen bopp ndax ki tollu diggante di liggéey lu mam bokk ak i bokkam bokk ak way juram bokk ak ay eh, borom këram kon ma ngay liggéeyal kam nekkal kam kam kamu yor ma ngi koy waajal kon doomam la doon waajal li mu doon defit mu leer senegal yëpp ne ndigal la ci am ndax fi mu sëy si famille bi liggéey rek lañ xam ak jaamu yàlla ak bokk liñ am loolu la famille xam xam naa leen bu baax ndax pap daa ñëw ci man dénk ma boppam baa baayam ñëw ci man dénk ma ko yaayam ñëw ci man dénk ma ko yaakaar naa loolu dara mënu ko wees kii dara ump ci moom li ma leen wax rek nit ku baax la ku gore ku mën a muñ ku nangoo liggéey ku tabe ci alal la ku nangu ndigalit jigéen nag nangu rek lañ rawante waaye ku nangu la ndax nga gisee taxawaayu sëy waaw taxawaayu mooy li ma la wax la mag ñi nekkoon ci la ndax nee naa la bi muy joué naan dama ëmb damaa toll fi damaa toll fee nit sax xam naa dañu jàppan day kaf rek waaye loolu moo doon li jigéen bu fekkee ne dafa toll diggante nangoon ne ca waar wa rek xamal ne ku nangu la ndax lu mu jëlee ca waar ci kër gi la ko jëmee dencut dara li am lépp yemal na ko ci bokkam ak borom këram sonn luñ ci dara ndax bu doon leneen rek ma xam ko baab lu fanaan ci moom ma yëg waaye waxtu dajeeg man ma daf koy gërëm ba bi ma ko xamagut lool sax damaa yaakaar def ko nob rek waaye li muy wax dëgg la bi ma ko xamee waaye nag nob na ko it nag tey loolu neex na waaye moom it neexuta bañ ndax day jàmbaar ju ñeme te jàmbaar ju ñeme foo ne xaj nga fo waaw en tout cas daal maa ngi koy ñaanal yàlla barkeel sëyam dolli ko dimbale te ñaan gi it nag moom sabab lu na fu ñaan nga xaj ndax jàmbaar la foofu lañ mën a yem ndax yëf yi daf maa jege ba mop man poroxaan laa jógee ndax mënu ma ko woon wute te ku jot a di laa waaye mënu ma woon a ñàkk ñëw tey ndax ñoom ñaar ñii seen diggante daf maa ñor lool te waxtu ne maa ngi ñaan yàlla mu barkeel waaye daal maa ngi seereel réew mi ne leen jàmbaara ngi nii ñi koy gis sax xamuñu ko jëflante wuñu ak moom nañu xam ne nit ku bëgg boppam la ku bëgg bokkam benn buur buñ bu maye woon doomam waaye bi mu ko mayee waa ji dafay seddale buy séddale ni muy seddale mooy day ëppalante kër ñetti cër fi nekk nit bu sëyee bëgg boppam bëgg ay bokkam bëgg borom këram bëgg bokki borom këram ñeenti cër la am daaro bëgg na boppam bëgg na borom këram bëgg na bokki boppam bëgg na bokki borom këram foofu la nit ku sëy mën a yem asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu.